Bok Samagal TV Bok Internauti, yi tey ngi def à la découverte de Iso. Iso, un jeune mâle de 10 mois

waaw Sport sama gars yi internet yi sama espoir fii ci Forak sama espoir bii nag macha euh, mu nekk benn agneau xam ni loolu na ko présenté ndax euh, def na euh, attraction bu doy waar ñëpp ñëpp nangu champion mooy mooy Izo hmm. yaa ji doomu buur Saalum macha doom booy taala lañ jël teg ko ci buur. waaw jur yaa ji. mo ab waaw. mu am ñaata mois. bul ci dix mois. dix mois le treize la judd waaw. yaa ko maa ko judd de waaw. même magam ñoo ko judd de yaa ji fa bu nekk bergerie Makala waaw Makala Mawagu Niar ok ISO 10 mois am hauteur bi am macération bi tey euh, pour yow la may. suñu bokk la nag ay waajuram yëpp ñu ko sekk. Buur Saalum Boy uh-huh. Arfan ak Biram Deux. mu uh-huh. mel il fallait euh, que. ah man depuis ba laa ko moo fay dugalaat trophée. ok macha allah euh, mu nekk xar boo xam ni euh, sama gaa bi dafa décidé topp ko parce que xar boo xam ni la euh, dafa dafa dafa amul moo ne promettre war a ñu war ko si élevage mu nekk bergerie Makala am bii mois tey tey commencé na liggéey wala non taxawul ba léegi parce que dañ ko jënd pépinière yi uh-huh. ay xale lañ fa nga ñu mag yi tam dañ tëppoon waaw mais commencé nañ wàccee xam naa fan bii moom quarante day ñëw salo ok ah, boo moytu moom lay njëkk a tëb. moom lay njëkk a tëb waaw allah. mu nekk euh, bokk sama gàtt bi gis ngeen ko espoir baa ngi nii donc tudd Izo. bergerie Makala. Euh, nga juddule ko. Euh, ana yaayam. yaa ji dafa ñëw ba fii Salor tamit. ok keroog Salor ko. ok ñu yóbbu ko ci Prospère bu Ousmane. waaw ah. fa la tëbu ji. ok mais xar bu génn bi duggaat. ok ah léegi xar yi Mido boo bëgg nga waxal ma mbokk sama gàtt bi. ay pédigré ci côté yaayam ba nga ñëw ba ci côté waaw bu dee côté yaay ji la. doomu booy taala lañ jël teg ko ci buur Saalum waaw mu jur yaay ji. doomu booy taala ngeen teg ko buur mu jur yaay ji. waaw baakar yi moo ko joxoon. ok waaw ok papa ji. papa ji sewal la. Mhm. sewal yaay ji doomu arfan la. sewal waaw ak euh, saxir ñoo ko jur. ok te biram deux. ok waaw macha allah. mu judd nekk tudd euh, Izo tey ñu ngi nii nag euh, Samagal TV da koy siiw fii ba muy dugg Espoir ba muy dugg Maal ak production am ak béykat yi Makala dañuy siiw euh, ci xam ma ba xam fii lay toog wala fa lay dem mais suñu Espoir la dañ koy toog incha allah am nañ ci yaakaar ah dix mois am nañ ci yaakaar bu baax a baax macha allah même recordu maam ji buur dina ko dindi incha allah. loolu nga gis bu baax sax. 123 dina ko dindi de. dina ko dindi sànni ko fële. ah jox ma numéro beeg adresse bergerie bi. 77. waaw 662. 45 13. 662 45 13.